bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala hada al amin sayiduna wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa radiya allahu an barzaqi almaktum alghayb taaju alaarifina wa imaamu alawliyai sayiduna wa maulana cheikh ahmad ibnu muhammad atijani sharif radiya allahu taala anhu assalaamu aleykum ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bii di waxtu aljumaa waaye dellu si itam di sant yàlla moom mi nga xam ni ci di ko cant ca la jaam bi di gisee njëriñam ndax moo wax la in shakartum la azidannakum te muy bu ngeen ma santee rek ma dolli leen waaye mu mel ni loolu yépp borom bi subhanahu wa taala ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko teg su ko defee lépp loo xam ni dañu koy soxla ci sunu diggante ak moom borom bi mu wax ni ci yonent bi la loolu nekk ndax it li ñuy soxla boo ko jàngatee dafay dellu ci ni li muy yaatu yaatu yépp lenn lañ ci mën a jàpp mooy yërmande yàlla ndax jaam boo gis muy dund li jaam bi di soxla ak li soxlaam di bare bare yépp lenn dong moo war a doon priorité bi mooy yërmande yàlla yàlla wax nag ci cadre yërmandeem boobu nga xam ni moom la jaam bi di soxla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaye mu mel ni moom yonent bi message bi nga xam ni moom la ko borom bi jox pour mu jàllale ko muy message u alquran mu nekk message boo xam ni message bu clair la waaye mu nekk it message boo xam ni message bu amul benn loo xam ni nit mën na ci xool ni lii kat lu leerul ci boppam la walla lu leerul ci xolam la kon dafay message bu clair di message bu net waaye itam mu tenir discours boo xam ni discours bu précis la ci événement yi nga xam ni monde musulman bi moom lañ doon dund ca jamono jooju moom yonent bi bi mu nekkee ca Màkka ak Médine ak monde musulman bi événement yi nga xam ni itam ñooy ñëw ba àdduna di tukki mu mel ni njàngat yooyu yépp bare na point yoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg na ko sur la table waaye am na benn point boo xam ni point bu am solo la muy la ñu tuddee teggin ci wàllu zikr xam nga bu ñu nee teggin ci wàllu zikr yonent bi buy yëkkati discours boobu di ko tenir dafa fekk moom dafa dugalaale julli ci biir zikr dafa dugalaale moom yonent bi boobu julli ci biir zikr waaw ndax bu ñu waxee ni inna salata tanha anil fahshahi wal munkar wala zikrullahi akbar boobu liy tax nit ki di sore lu ñaaw liy tax nit ki di sore loo xam ni yàlla gërëmu ko loolu su bokkee ci jaamu yàlla donte julli lay taxawe julli boobu mënees na ko delloo ci biir zikr waaw ndax zikr ay dimension la dimension julli ci inna salata tanha anil fahshahi wal munkar dimension beneen zikr bi nga xam ni tey moom la soufisme def priorité te mooy ba ñoo tuddee wala zikrullahi akbar waaw benn bu ca nekk mën nañ ko interpréter waaye suñ ko interpréter itam dégg-dégg yi ak gis-gis yi sunu wute yi fekk na du nu wute ca jaamu bi waaw maanaam jaamu bi nga xam ni moom la ñuy présenter ci kanamu suñu borom waaw kooku mënuñu ci wute xam nga lu tax jaamu bi ñuy présenté suñu kanamu borom mënuñu ci wute mooy jaamu bi li muy yaatu yaatu lenn dong la laaj mooy teggin ba waaw teggin bi yàlla di may jaamam bu bëggee am audience ak moom ci wàllu julli waaw taxawaay ba muy taxaw xibla ba muy jàkkaarloo sujud yi muy def ak roko yi muy def waaw ak toogaayu julli ba lenn lu ca nekk génnul tegginu zikr waaw su ko defee nag ki ci pare jël kurusam di wérd moom it loolu muy jàng bu dee turu yàlla la du génn tegginu zikr bu dee salaatu ala nabi lay du génn tegginu zikr looloo tax point essentiel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soulevé mu wax ni tegginu zikr mooy tax li ngeen di def yàlla nangu ko waaw nee na mooy tax li ngeen di def yàlla nangu ko waaw moo tax mu waxoon moom yonent bi ni tegginu zikr nee na dafay jiital ñaari point ñaari point essentiel yoo xam ni mooy tax teggin bi dikk waaw nee na point bi ci jiitu nee na mooy li ngay def nga xam na nga koy defe kon point boobu day am relation ak xel point bi jiitu ci tegginu zikr yonent bi nee na mooy li ngay def nga xam na nga koy defe kon point boobu day am relation ak xel ndax ci xel nga mën a natt ba xam ni lii kat nii nga ko war a defe nga defe ko nii waaw beneen point bi ci topp mu ni dafay am relation ak li ngay def nga bëgg ko kon loolu day am relation ak sa xol waaw parce que ci xol nga mënee bëgg li ngay def waaye bu ñu jàngatee discours boobu dañuy gis ni ndekete moo indi kuy julli ñu wax la ni da ngay fexe. ba julli bi ngay julli nga xam nan ngay jullee maanaam nga xam boo rukkowee lan ngay wax nga xam boo sujjóotee lan ngay wax nga xam booy def taaya lan ngay wax waaw ndax ndeke dafa bokk ci tegginu zikr dafa bokk ci tegginu zikr yonent bi wax ni da ngay fexe ba li ngay def nga xam ko maanaam mu am relation ak xel beneen bi mu wax ni li ngay def nga bëgg ko mooy booy julli walla booy zikr mu bañ nekk pression supplémentaire ci yow waaw xanaa nga jàppe ko rek loo xam ni jaamu yàlla la bu la war waaw xam nga looloo tax ma waxoon ni kiy julli te fekk na maanaam buy julli sax daf koy def rek ndax dafay gaawantu waaw ñu ngay dégg ñenn ñi xaaral ma jël sijaada bi rek lal daal di julli benn yoon mu jeex déedéet. kooku mën nga ko def waaye fexeel ba boo gaawantoo si sijaada ba lal ko julli mu jeex na nga fexe ba yàlla nangu parce que bu ko yàlla nanguwul it njëriñ ba du bare waaw te yonent bi nee na yàlla li muy nangu mooy loo xam ne dafa ànd ak teggin waaw mu ni li ànd ak teggin mooy loo xam ni ba nga koy def nee na fekk na nga am xel moo xam ni xam xam nga na nga koy defe waaw beneen bi nee na fekk nga am xol moo xam ni bëgg nga la ngay def te loo xam ne xam nga na nga koy defe ba nga koy def bëgg nga ko mooy boo koy def di nga ànd ak tranquillité mais aussi di nga ànd ak patience waaw looloo tax jaam bi pour mu mën a respecter tegginu zikr foog mu fexe ba jàng kim ka seq kan la waaw kim ka seq kan la te yàlla la ko seqal waaw xam nga yàlla jaam mënul def lu mot ci kanam waaw looloo tax ñu ni boo naagoo li lay génn ci biir diine islam wala li lay daaneel ci loolu lay jóge ndax da ngay jàpp ci naagu ni mooy li muy def maanaam moom def na lu mot waaw fàtte ni yàlla kenn mënul def lu mot ci kanamam da ngay def kay lu mu nangu da ngay def ci kanamam lu lu mu nangu moom borom bi waaw julli bi ngay julli zikr ba ngay def lenn lu ca nekk sa yéene mooy yàlla nangul la li nga def waaw sa yéene mooy yàlla nangul la li nga def waaye nag du loolu nga def rek dafa mot waaw ndax li mot moom ci moom lay dellu si te kenn mënul def lu mot ci kanam li ko indi mooy doomu aadama li jukko yi yàlla di def ci moom di bare bare yàlla nee na benn jukko dong lay àtte ci doomu aadama bi su fekkee nangu na doon jullit ba ñu indi ko ci cadre muminu na xaqan nee na mooy jukko ba ñu tuddee volonté waaw mooy jukko ba ñu tuddee volonté pas-pas waaw kon gis nga yàlla du seet sa appartenance familiale yàlla du seet sa richesse yàlla du seet mbooloo mi nekk sa gannaaw mais la muy natt mooy volonté bi nga am waaw nee na boobu jukko daal lay natt ci doomu aadama waaw volonté bi su xasee ba dikk yeneen yépp moom borom bi mën na fexe ba yooyu bu matul woon it mu mottali ko ndax volonté bay tax nag nit di julli waaw ku amul volonté mënoo julli wala booy julli du yàgg ku amul volonté mënoo julli ndax booy julli soo ko tàmbalee doo ko àggale waaw mooy doo ko continuer waaw ndax kenn du julli rek ndax dafa am situation bu tax ngay julli déedéet yàlla julli bi muy nangu mooy julli boo xam ni leer na ni ki koy def xam na ni moom jullit la julli bi dafa doon obligation ci moom waaw yàlla dafay bëgg nga jël julli comme obligation. xam ni lu la war la ndax jullit nga kon boo gisee nit ñi daa julli boo gisul nit ñi daa julli waaw bu cérémonie amee daa julli bu cérémonie amul daa julli waaw bu tabaski jotee daa julli bu tabaski jotul di nga julli waaw parce que am na ñoo xam ni balaa ñuy julli rek dafay fekk feet jot nu sol seen yére après dem ca mbooloo mu julli su paree jeex na déedéet waaw boobu yàlla du ko reconnaître yàlla bi muy reconnaître mooy boo xam ni da nga koy def parce que obligation la. moom la la sant su ko defee ci biir julli boobu nag leneen li ngay dabaatal leneen loolu la ñu tuddee zikr waaw ndax connexion sa diggante ak sa borom warul nekk loo xam ni luy dog ci benn moment la waaw moo tax ngay gis ni bu ñu paree ca julli ba ñu dem ca zikr ba waaw zikr bi ñuy def teggin bi zikr ba laaj teggin bu ko ëpp la julli bi laaj ndax bi yonent bi di joxe message boobu yonent bi moom dafa waxoon sous forme ni julli ba ca tegginu zikr ba la bokk waaw ndax gis na ni li wër julli yépp zikr la waaw jàng bi ngay jàng fatihatul kitab waaw ruko bi ngay def sujud bi ngay def lenn lu ca nekk dafay dellu ci sa zikr moo tax ñu ni tegginu zikr bi yonent bi doon wax Ababacar teggin boobu boo ko jàngataatee tey muy bi mu wax ni dafa am ñaar yu essentiel yu mu àndal benn bi mooy sa xel mooy la ngay def nga xam ko moo indi ñu ni la jàngal lu ñuy jullee waaw loolu moo indi ñu ni la jàngal lu ñuy jullee boo jàngee ni ñuy jullee ba noppi nga jàng bu julli ja demee ba nga juum ca nan ngay réparer maanaam li indi njuumte ba waaw tey li indi nit di def xabla salaam li indi nit di def ba'da salaam waaw ñu ni loolu ca tegginu zikr moo tax ñu ni la da nga ko war a jàng pour xam waaw ñu ni nag beneen bi nga xam ni wax na ko ni dafa am relation ak sa xol mooy booy julli dafa war a fekk nga bëgg julli ja waaw moo tax ñoom nanguwuñu woon julli joo xam ni borom bu koy def dafay nekk pression ci moom déedéet waaw ñoom dañ ni julli ja borom bu koy def dafa war a nekk loo xam ni maanaa dafay déggoog bëgg-bëggam jullit la tisbaar jot na war na julli tisbaar jullit la tàkkusaan jot na war na julli tàkkusaan jullit la timis jot na war na julli timis bu gisee nit ña ak bu gisul nit ña bu nekkee ca jàkka ja ak bu nekkul ca jàkka ja bu cérémonie amee ak bu cérémonie amul waaw parce que yàlla dafa dem ba wane ni julli boobu moom moom moomeelam la waaw waaw yàlla nee na du moomeelu kenn waaw moo tax sax nii ngay déggee léeg-léeg yenn discours yi ñu di ko nuróoleeg ak julli yàlla bëggul loolu maanaam yàlla bëggul ñu nuróoleeg julli dara xam nga léeg-léeg nga dégg ay nit nekk ci cérémonie religieuse waxtu julli jot nga dégg ñu ni ñi ngi ci julli wala déedéet ki nekk ci julli day jóg kàbbat jublu penku ànd ak nit ñi sujud rukko noonu la ko yonent bi doon def waaw parce que loolu boo ko waxee ki déggul xam-xam wala ki hikmaam des wala ki nga xam ni dégg-déggam des na mën na juum te bu juumee yaa ko juumloo waaw fekk bu juumee yaa ko juumloo waaw moo tax ñu ni xaqiiqa xaqiiqa nattukaay la mais nattukaayu nit ki nga xam ni mi ngi wax fi mu toll moom waaye nit ki war na demander ci jamono jooju ni ndax moom mi wax fi mu toll est-ce que ñëpp foofu lañ toll waaw moo tax mën na wax te kenn du ko dégg moo tax mën na wax te kenn du ko dégg te boo nekkee un éducateur booy wax da nga war a sóoraale ni am na ñoo xam ni ñoom it seen dimension dégg-dégg tolluwul foofu waaw moo tax bu ñu nekkee ci cérémonie religieuse nu ni rek ñu ngi ci julli ki nga xam ni moom xëy na dégg-déggam tolluwul foofu bu demee moom it. bu yoree benn micro di conférence day defe ni mi ngi ci julli fekk julli mooy jub julli kàbbar ruku sujud ànd ak mbooloo mi ni ko yonent bi waxe woon alquran waxe ko noonu waaw boo demee ci alquran mi ngi wax ni bu ngeen di rukkoo na ngeen rukkoo ànd ak ñi nga xam ni ñi ngi rukkoo bu ngeen di sujud na ngeen di sujud ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñi ngi sujud kon loolu mooy julli waaw loolu moo tax nag ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay bëgg cérémonie bu am ak importance bu cérémonie bu mënta am bu waxtu julli jotee cérémonie boobu ñu ñu ñu taxawal ko ñëpp àndandoo julli loolu la yonent bi bëgg waaw waaye yonent bi bëggul mukk ñu continuer cérémonie bi ba noppi wax ni ñu ngi ci julli déedéet loolu lu bees la waaw loolu amul fenn fu yonent bi ànd ak sahaaba yi wala bu njëkk ba ci mag ñu baax ñi ba ñu ni loolu tëral nañ ko noonu déedéet waaw dañ daan toll ci xare waaw jihaad jihaad ñëpp xam nañ ni valeur bi mu am ci islam néew na valeur bu toll noonu waaw mooy ci xare jullit yaa ngi taxaw yéeféer yaa ngi taxaw waaw ñi ngi taxaw di défendre lan drapeau la ilaha illallah muy drapeau islam waxtu julli jot yonent bi wax ni ñi nga xam ni ñi ngi xeex nañu wut ñu leen garder ñoom ñi xeex laa wax de ci yoonu yàlla yonent bi ni nañu wut ñu leen sécuriser ñu julli ba noppi ñoom bu ñu jullee ñu sécuriser ña leen sécuriser woon ñoom it ñu julli ba noppi ñu continuer xare xanaa bi ñuy xare nekk ñu woon ci julli kon looloy wane ni li ñu war a inculquer waat jeunesse bi nga xam ne ñooy topp tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cérémonie lu mu mënta rëy rëy suñ ko mënul def ca jamono ja nga xam ni leer nañu waxtu julli ba passé na bu ñu koy def ba waxtu julli ba jot ñu dagg cérémonie ba def julli ba loolu la yonent bi santaane leneen luñ ci indiwaat njàngale bees la bu dee xaqiiqa nag xaqiiqa kenn tollawu ko waaw ndax leneen nit wax ni xaqiiqa laa wax ma ni waaw dëgg la xaqiiqa nga wax waaye sa xaqiiqa na mu toll xaqiiqa keneen tolluwul noonu waaw bu doon xaqiiqa rek nitu yàlla yi mën nañu toog fa ñu toog nga gis leen nii ñu ngi toog ñoom ñu nga jug di julli ca kanamu kaaba ga wala di julli ca biir masjidil aqsa te yaa ngi leen di gis waaw xanaa kon seen xaqiiqa ñoom nu mu nu mu toll nag lu tax ñuy jug dajale nit ñi ñu taxaw ci seen gannaaw ñu julli ànd ak ñoom mooy dañu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan def ñu gis ni éducateur yi noonu lay def waaw ndax du fa mu toll la ñëpp di toll looloo tax yonent bi wax tegginu julli li muy am am solo yëpp nee na nga xam na ngay defi julli ja li am relation sa xel la ngay def nga xam lan la waaw beneen ba it li ngay def nga def ko te du doon pression maanaam nga bëgg ko su ko defee mu ni bu dikkee ba noppi nag nee na leneen luy ñëwaat nee na leneen luy ñëwaat comme zikr julli jooju dina ko uuf waaw leneen luy ñëwaat comme zikr julli jooju dana uuf loolu maanaam julli jë su xasee ba nga def ko ak tranquillité def ko ak sa dalu xel def ko ak sa dalu xol julli ja dana tax lépp luy manquement julli ji mën ko mottali ndax yàlla kenn mënul def ci kanamam lu mot waaw lu mu nangu rek nga mën a def ci kanamam te da ngay ñaan sax mu nangul la waaw kenn mënul def ci kanamam lu mot ndax dimension moom waaw xam nga ñu ngi wax soo demee ci suuf su maarifa nga dégg la ñuy tuddee nit ni la man xam naa yàlla waaw waaye gis nga loo xam-xam yàlla da ngay xam li la yàlla xamal ci moom waaw lu sa xam-xam yàlla xóot munoo xam lu dul lim la xamal ci moom ci boppam waaw lim la xamal ci boppam nag comme moom mooy yàlla ñun ñooy jaam yi loolu mooy rëy toll fenn ci sa wàllu rox ba da ngay defe ni maanaam fi nga toll jeex na waaw fekk na sax tàmbaleegoo ndax yàlla li mu projeté présenté ñu ko mooy allahu waaw moom la yàlla projeté yàlla lim nu présenté projeté ñu ko mooy allahu turam ba ñoo tuddee allahu moo indi bu nit dee julli nga gis mu taxaw ni allahu akbar waaye yàlla allahu la ñu la ñu présenté projeté ko ci ñun sous couverture waaw mais moom réalité moom yàlla moom divinité moom yàlla kooku ku mu mosalul lenn li mënoo xam lu dul rek li nga xam ni moom xamal na la ko ci waaye moom kenn mënu ko serbe waaw wax na ko sax laa taaxuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man da lladi yashfahu indahu illa bi iznihi yaalam ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma shaa waaw wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al aliyul azim waaw kon yàlla moom wax na ni moom kenn mënu ko serne su ko defee nee na sa maîtrise mystique ak sa maîtrise spirituelle li muy élevé élevé yëpp bañ tuddee la aarif mënuloo xam lu dul li mu cof moom xamal la ko ci boppam waaw moo tax nag yonent bi waxoon ni comme yàlla foofu la toll nee na lay dimbali jaamam mooy mu topp directive yi waaw mu topp directive yi nee na bu ñëwee mu présenté borom bi ni ko kat lii nga santaane jéem naa ci lii waaye nag na nga xam ne nag jéemu jéemuma lu mot nag waaw ndax lu tax mënuma jéem lu mot mu ni ko parce que jaam laa léegi nag maa ngi lay ñaan nga mottalil ma ko dee nag su boobaa yàlla mooy xool ci coobareem na mu ko neexee mu mottali jaamu jooju waaw léegi nag su jaamu jooju motee moom la ñuy wax ni diw mii kat am na tegginu zikr waaw bu jaamu ja motee moom la ñuy wax ni diw mii am na tegginu zikr moo tax tegginu zikr nga xam ne julli mooy mooy en premier. kenn mënu ko seede ci kanamu yàlla lu dul ni jaamu ja ngay jaamu yàlla mot na te nee ñu yàlla kat kenn mënu ko jaamu jaamu ju mot da ngay def rek lam la sant waaye moo koy mottali su ko mottalee nag ñu tuddee ko tegginu zikr waaw tegginu zikr boobu nag la alxuraan ni su xasee ba dikk inna salaata tanha anil fashaahi wal munkar nee na na nga koy xàmmee mooy julli ja ngay julli dana tax nag léegi mu dem ba la ñoo tuddee ay diversion la ñoo tuddee ay jëf yoo xam ni yàlla gërëmu ko nee na yàlla daf la koy soreel benn par benn su fekkee nangu na sa julli waaw ca la alquran indi seede boobu waaw ni yàlla su nangoo sa julli nee na nag dana fexe ba li ñaaw ak li nga xam ni rafetatul ak li nga xam ni moom gërëmu ko dana lañ changer jukko ya benn par benn di la ko soreel waaw waxuñu nag ni nit dafay xëy rek julli tay rek après commencé na julli tay rek jeex na nekk na nit koo xam ni dootul juum dootul tarxiis lépp lu baax lay doon yàlla mooy xool ku ko neex mu ommat la yu dillu man yasha wa yahdi man yasha waaw mais ommatu yàlla mi ngi doxe au fur et à mesure nit ki di dox ci siraatal mustaqim waaw xam nga bu doon bu nit ñaanee benn yoon rek yàlla tekk ci siraatal mustaqim dootul tarxiis kon du jar jamono ju nekk muy wax ihdina siraatal mustaqim siraata allazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin lu tax nit ki di ko ñaan jamono ju nekk ba ñu farataal ko ci julli moom fatihatul kitab te lépp di ñaan loolu mooy wane ni nit léeg-léeg danay juum ndax nit la waaw moo tax ma wax ni nit kenn du ko rejeté waaw nit su juumee ci jotaayu diine kenn du wax ni maanaam yow juum nga rek wala yow kat yaa ngi doon def bàkkaar sàngam léegi maanaam léegi nan la sànni fële bokkatoo waaw wala jeex na bii mooy sa dernière chance déedéet tant que nit mi ngi dund ci kaw suuf am na chance ba léegi pour mu changer waaw ki chance am jeex kay mooy ki dem ba nga xam ni dundam jeex na su boobaa dundam jeex na jël nañ ko yóbbu nañ ko ca armeel ya suul nañ ko kooku moom chance am jeex na ndax yonent bi lim na kooku chance yi mu dese nee na chance yi mu dese mooy mu amoon doom ju baax bàyyi ko fi doom ji di ko ñaanal te la ko doomam di ñaanal fekk mu bëggoon ko ba noppi waaw bu doom de ko ñaanal ci jàkka na fekk mu bëggoon jàkka bu ko doom di jàng alxuraan di ñaanal na fekk mu bëggoon alxuraan loolooy tax ñaan ba nangu beneen ba mooy walla mu bàyyi fi tool boo xam ni bay na ko ba léegi tool ba ña ngi koy récolté di ci may jullit yi jullit yi di ci lekk yiw ba di ko fekk wala béréb boo xam ni bérébu jaamukaayu yàlla la woon lu mel ni jàkk wala dara ña fay jaamu yàlla yëpp mu di ci jëriñu waaw kon kooku sansam jeex na ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni kat lii la fi dese ci ay sens yoo xam ni mën na ko fa jëriñ waaw waaye su dul loolu tànk nit ki mi ngi dund moom mi ngi ak bakkanam changement moom weesuwul da fekk nag boo déggul maanaam nit mën na yàq sa xel ba nga defe ni mënatoo changer waaw loolu ci discours am ñi nga xam ni dañuy faral di wax ci turu yonent bi war nañ ci def attention waaw nit lu mu yàqu-yàqu mën nga ko récupérer waaw ki nga xam ni mi ngi ci yoonu ndëngte wala tey ji erreur de jeunesse moo ko jàpp wala mi ngi ci yoon boo xam ne yàlla gërëmu ko da nga koy encourager ni ko yoon boobu bis boo delloo tuub yàlla mën na la jéggal waaye doo ko wax rek ni ko yoon boobu kat tuuboon nga duggaat nga ci tey jeex na léegi c'est fini boo ko waxee dafay taayal sax waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon Umar ni ko man Umar dama fi ñëw pour sauver nit ñi waaw fekk Umar daf ko wax ni ko bis ni ko dafa am lu may regretter yonent bi ni Umar lan ngay regretter mu ni ko li ma jaaroon ci kéeféer waaw li ma jaaroon ci kéeféer moo may metti ba léegi waaw mu ni ko dem ba ma jël sama doom bu jigéen sax di ko suul ndax réer bu metti mu ni ko su ma ko xalaatee ba léegi damay jooy waaw mu ni ko sax lu ma dem ba indi ma sa wet tay ji ba ma toog ba mën a bokk ci say compagnon sax jaaxal na ma man ndax fi ma jaar yonent bi nekk nag Umar loolu bu mu la jaaxal mu ni ko lu tax mu ni ko ndax ñëwuma pour sanctionner nit ñi dama ñëw pour sauver nit ñi waaw wax jooju wax ju am solo la yonent bi ni Umar ñëwuma man pour sanctionner nit ñi dama ñëw pour sauver nit ñi mu ni ko moo tax kuñ ma mënta indil ak jaar-jaaram lu mu doy waar doy waar bis bu nangoo tuub topp yàlla bis boobu lay doon sama compagnie waaw loolu mooy li am solo yonent bi ni ko tànk nit ki mi ngi nangu rek di tuub xanaa mu dem ba yàgg ni tuubatum waaw mu ni ndax yàlla ki mu d'accordatul nangul ko ngëmam mooy koo xam ni dem na ba naagu ci bàkkaar wala naagu ci ñaawteef nee na mooy nit di def bàkkaar di def ñaawteef ba xëy ni man kat xam naa ni moom yàlla dootuma jéggal ni ma mel kay naa ko continuer rek nee na yàlla fa mu nekk dafa naan waaw continuer na nga mel rek boo ñëwee tamit safara mi ngi ci mu ni waaye ki nga xam ni leer na ko ni même bu defee dara wëlbatiku na tiit ni day dellu si ci yàlla dafay tuub yonent bi ni Umar kooku yàlla daf koy nangu tuubam boobu waaw bu demoon ba juum sax bu ñëwaatee yàlla nangul ko mu ni ko gis nga yàlla du rejeté jaamam tànk jaam bi mi ngi ñëw di tuub waaw moo tax boo yoree discours islam waroo rejeté kenn tànk mi ngi wëlbatiku di tuub waaw ndax tuub moom yàlla moo ko moom. tuub yàlla moo ko moom moo tax mu waxoon ko yonent bi ni ko bu nit ñëw mukk di tuub nga ni ko duñ la nangul déedéet yedd na ko ci ni ko bul gisit nit def safaan ba ba bu ñëwee di tuub sa xel dem ci safaan ba ba nga ni ko yow kenn du la nangul yàlla ni yonent bi tànk jullit baa ngi ñëw ni dafay tuub bul xool safaan ba mu defoon démb na nga ko nangul tuubam boole ki ci ci sa ay compagnon te di ko soññ waaw mu ni ndax boo ko soññee rek mu tegu ci siraatal mustaqim te wax na dëgg parce que bu doon bu nit ñëwee di tuub yàlla day wax ni kenn du la nangul sa tuub wala dañ lay rejeté wala mu ni yonent bi rejeté ko kon yërmandeem bi mu wax moom yàlla kon yërmande boobu dañ koy seetaat waaw yërmandeem nag yaatu bi mu yaatu moo tax mu ni ko tànk mi ngi accepté juumoon na dellu si na mi ngi ñëw bëgg bokk ci ñooñ islam nee na yow yonent bi sa rôle mooy fexe ba kooku des ci ñooñ islam te na nga koy digal muy tuub digal ko mu tegu ci siraatal mustaqim yàlla nañu ci yàlla yàgg teg asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu